aka yéen dee leen bette rek ci la bokk ba tey mais man bu ngeen bettee bu ngeen taalee caméra yi bu ngeen duggee tamit damay wax rek salaamaaleykum mbokku téléspectateur u 2STV yi nga xamante ne ñu ngi ñuy setaan euh, namoon nañ leen boobaak léegi ñu ngi excusé wu baax a baax a baax ci retard bi nga xamante ne euh, am nañ ko Mouhamadou Moustapha moom lay àndal a chaque fois ci émission bi la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé confrontation la sama rakk maa ngi lay nuyu di la ziar. mais maa ngi lay fay bu baax a baax di la wax bonne heureuse année 2022 parce que c'est notre première émission bi mu bi di souhaiter aussi képp kuy téléspectateur di leen wax bonne heureuse année kontaan nañ ci retrouver leen waaye suñ première numéro nii la mën a demee donc nuyu nañ leen bu baax a baax a baax a baax ak ndaanaan yu mat ndaanaan bijou waaw ndaanaan yu mat ndaanaan confrontation la euh, ni ñu koy amalee a chaque fois Mouhamadou Moustapha balaa may nuyu ñi nga moom mooy invité ñu fi teg tey face to face bi xam nga nag situation oblige. absolument waaye dañuy nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp suñu wagg yi ba confrontation mel ni mu mel. Mhm. Ah, bokk na ci sponsor yi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal à chaque fois ci émission confrontation. bokk na ci Wave ah euh, avec Wave c'est payer sans stress. Euh, Mouhamadou Moustapha. waaw léegi mën nga fay ak Wave fépp si biir Dakar Auchan hypermarché exclusif Supeco Sen Teranga Low Price Jollof Chicken KFC Brioche Dorée Wonder Food Mamma Mia Pizza Time Decathlon ak fépp foo gis ñu taf paye ak Wave. ayca scanner CPE deux options le marchand scanne votre code QR euh, dans votre application ou sur votre carte Wave scannez vous-même le code marchand au niveau de la caisse entrez le montant et validez am nga bonus 1 pour cent remboursé. pour tout paiement via Wave. d'accord mën nga woote ci euh, mën nga woote ci 200 600 ndax ñu mën laa boole ci suñuy marchand partenaires ngir nga mën a récupérer say paiements si ni mu gën a gaawee te gën a wóor. ba tey loolu yëpp ci xeetu neex-neex la si vous êtes un professionnel aussi et souhaitez recevoir les paiements de vos clients euh, via Wave appelez aussi au 200 600 hein, euh, c'est rapide simple et très sécurisé Wave daal sa xaalis euh, yaay borom. comme ni ñu koy waxee tout le temps. mais bokk na ci aussi lu yànj lu bees li nga xamante ne mi ngi ci biir plateau bi Mouhamadou Moustapha yaakaar naa ni euh, euh, bu ñu xoolee décor bi rek nice na nice boo xamante ne muy gan gi nga xamante ne am nañ ko tey bokk na ci wóot cola. dëgg la wóot cola muy boisson boo xamante ne boisson gazeuse la très très rafraîchissante mi ngi noonu xam naa fi yegg ci kanam léegi léegi dinañ dugg si détaillé leen. pendant émission bi bokk na ci Ecopro ah euh, boobaak léegi ñu leen di wax ci face to face Balla Gaye Bombardier kenn ci tey xam naa ni Bombardier moo koy maye ah euh, Bombardier mooy maye li ko neex nag ci plateau bi tey loolu la yàlla dogal mm-hmm. euh, mu xool rek Ecopro beeg ak bagage yi nga xamante ne moom lañ fi teg bokk na ci waa Torabika aussi ah côté boobu waaye Bombardier bu mayee tamit Balla force day maye mm-hmm. ah, force la loolu maa ko décidé day maye yaa ngi dégg ak reer bi nga xamante ne mère et fille defal nañu ko muy reer boo xamante ne wax dëgg yàlla euh, euh, suñu suñu suñu buuru tay bi saa invité mbëri ngay def buffet bi ah waaw waaw xam nga plateau plateau bi <laughs> plateau plateau Gaston production moo dul caaxaan gis naa loolu plateau Gaston production non non non ah yow tamit nag a ah albaraka ah, ah yé Euh, courage jëmale sa kanam. waaw loolu am na fii defal ñu euh, reer bu mucc ayib defal ko euh, ki nga xamante ne moom mooy bombardier ah reeru tay bi moom reeru bombardier la tamit waaye reeru baala lay doy nit par waaw kay yooyu yëpp dama koy def <laughs> tey tamit émission <laughs> ah. ah, bi. par la séquitable ndax xaaral fii ba tey au ci ndox bi ñuy gërëm ñëpp Mouhamadou Moustapha waaye damay bàyyi rek suñu ganu tey ñu daal di nuyoo. ah euh, dama koy njëkkee ci suñu kilifa euh, père père maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bisu ngóode di fay sa euh, réero. sama copain la père. Mhm. de temps en temps. dafay <laughs> ñu leen souhaiter meilleurs merci merci beaucoup. di ko souhaiter sama ñaari partenaires yi muy Bombardier ak Balla Gaye samay doom lañu. di ko souhaiter ñu ànd ak ñoom ñëpp nga xam ni. ay àndandoo yu fidèle lañu ñi ànd ak Bombardier ñu ànd ak Balla bëgg seeni mbër donc euh, làmb nii rek la jàmm. Mm-hmm. avant làmb lu ne danañu ko defante par euh, euh, professionnalisme. Mm-hmm. gëm sa bopp ku nekk yi wax pour jàppale promoteur pour mu mën a jaay làmbam. Mm-hmm. moom la Balla Gaye doon def moom la Bombardier doon def il faut ñu dëgëral affaire yi bañ a yombal dara. Mhm. mais su lamb ji jeexee na gis nga léegi bi ñu acté ñoom ñaar ñu me ni ay seex mel ni bokk ndey bay mm. loolu rafet lool donc euh, il faut que nit ñi di génn ci di comprendre mbër yi mbër mu ci one dëgg balaa combat yaayal combat bi pour dimbali promoteur su combat passé ngeen dellu nekk ay frère parce que ñoom ay ay frère lañu ñoom ku fekk ñoom ñaar rek kenn dugg seen diggante mhm. donc euh, voilà ñu xaar nag li des ci débat bi Euh, ma nga noonu euh, Père Gaston dégg ngeen euh, kàddu yi nga xamante ne moom la yëkkati da ci baax mais ci biir waxtaan bi yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee bokk na ci plateau bi tey aussi Mouhamadou Moustapha mhm. nga présenté. beneen invité bi waaw ki ñu ki ñu ki ñu. benn invité bi mooy l' enfant chéri de Mbour. waaw bombardier ñëpp xam ko ci champion bi mu doon. tey moom la moom la ñu dalal tey champion ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw Mamadou maa ngi lay fay di la nuyu. di nuyu bisu ngoone nee na tey bantam gudd la may laale <laughs> mais maa ngi koy nuyu. maa ngi lay fay di nuyu sunu père Gaston Mbengue sunu xarit. di nuyu sama frère Balla Gaye 2 di nuyu aussi sama frère Bale Makan ak Demba bi ma àndal ak ñëpp ñi ànd ak euh, Balla Gaye 2 yëpp maa ngi leen di ziar di ziar sama manager aussi Aline Gueye waaw di nuyu Sénégal yëpp dina wax ne jotaay bi jekk na. comme ni ko sunu euh, tonton Gaston Mbengue nga waxee euh, làmb sport la rek sport nag euh, dafay laaj moment wu combat fugg yi day jóg dënn yi day jóg tension yi day jóg mais li ma doon wax avant combat après combat loolu laay wax mooy mbër bu nekk mbër mooy sa trésor mm. parce que tey mooy tax nga am xaalis mooy tax nga am succès mooy tax nga am victoire kon mbër bu nekk rek dafa war a jox cër beneen beneen mbër parce que mbër mooy mooy mooy trésor am ay frère lañ du ñooy ennemi. Mm-hmm. làmb dafa ñuy boole nekk suñu métier ñu di ko def. Mm-hmm. yàlla moo ñu ci nattu. ñu nekk ci muy métier boo xamante ni dafa bëri dafa bëri stress bëri coow bëri ay werante lu nekk commentaire da nga ko siy dégg. Mm-hmm. mais après bu làmb ji jeexee jeex na ñun ay ay frère lañ ay doom rey parce que tey boo xoolee ancienne gloire yi tey nga xam ne ñun ñëpp fa lañ jëm après. kon nag moment bi ngay def sa carrière. loo si def si nit lu ñaaw rek après da fiy des te li ma desee si làmb wax dëgg yàlla ñaanuma def si nit loo xamante ni lu ñaaw la suba bu ñu dajee ma sëgg kon maa ngi koy encouragé bu baax a baax a baax di wax ni il est encore jeune ñaanu yàlla def kenn lu ñaaw waaw làmb làmb mu ngi ci kanamam di ko ñaanal yàlla may ko wér et ay fameem ay ay encadrement am gën ko encouragé parce que sport loolu rek la di ko ñaanal mu ñëwaat ak jàmm incha allah moom mooy dem rey la pare jàll la waaw waaw waaw Bombardier jërëjëf <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax a baax baax <laughs> euh, damay bàyyi ba bàlla mu nuyoo <laughs> bàlla ñu ngi lay nuyoo jërëjëf ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo waa Sénégal kii dafa dafa lakk la quoi bu baax a baax di nuyu ki nga toogal euh, yëpp nag mhm. vraiment ñu toog di ñu seetaan rawatina 2STV yi di nuyu suma adversaire euh, Bombardier ko wax félicitation encore merci ko ñaanal yàlla na ko ndam li jik ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu suma père Gaston bu baax a baax di ko remercier di ko ñaanal yàlla bis yi nga xamante ni organiser ko organiser na ko yàlla na ko suñu borom ak àggaliñ di nuy aussi tamit euh, ñu ma àndal vraiment bu baax a baax ku ci mel ni Baboy Sakes Moustapha Badara Pape portable Alizé ñoom ñëpp maa ngi leen si ak sëñ Mbacke Boucher maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm parce que gis naa aussi tamit ni ñu comportement ak man. Mhm. ak ànd bu ñu ànd man. mais nag euh, kon damaa teel a nuyoo te waroon nuyu kilifa diin ak kilifa aada yi di ñaanal sëñ Mountakha Mbacke mu yàgg fi loolu te wér. ñaanal njabootu maam Cheikh Rafal ñu yàgg fi. rawatina waa kër njabootu Cheikh na Cheikh Sadibou waa kër sëñ Babacar si Alaaji Malick Bu Kunta Njaasaan kenn rawatina samay supporter ak sumay am di jàmm rawatina suma kilifa di suma mag di suma xarit Abdoul Aziz Aly Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko sant xam naa fu mu départ mais xamu fu mu yam rawatina bàyyi Ndiaye aussi tamit maa ngi koy nuyu bu baax xam naa fu mu tàmbalee mais xamu fu yam ndax sant ak ngërëm ndax gis naa seen taxawaay ci man ak seen bëgg-bëgg ci man ak seen ambition ci man di nuyu ma Masata bu baax a baax a baax a baax gis nañ taxawaayam vraiment kontaan ci loolu rawatina aussi tamit di nuyu suma yaay bu baax. ak njabootam ak sama famille Sakho yëpp gis naa seen mobilisation bi nga xamante ne def nañ ko ñëw soutenir seen frère samay doomu baay di ko jël nuyoo bi di ko teg ci loxo malal suñu mag suma taw papa. rawatina na mooy nuyu Aline Sall gis nañu nag aussi vraiment taxawaay bi nga xamante ne taxawu na ko géejawaay. Euh, jënd na ay billets yu bëri soutenir su may supporter ak su may am di jàmm. Mm-hmm. rawatina suñu mag aussi tamit El mari Malick nga xam ne loolu la yàgg dundi ak ñun loolu la yàgg nekk ak ñun vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm gis nañu Ahmed Aïdara aussi tamit liggéey bi rafet na vraiment gis nañu taxawaay bi ànd naa ñun fu ne jàppale ñu. aussi di gërëm Lat Diop bu baax a baax ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal jàmm aussi fu mu toll nen na taal. ñoo ngi koy sant di ko gërëm rawatina aussi tamit Cheikh Mbacke di suñu mag di suñu xarit ak Baara Gueye Kiringawel maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. jërëjëf Balla. non bu doyul doyul rek ma tuuti rek. Eh, parce que nuyoo damay nuyu rek. Balla is na nag de non dama la tooñ rek may may ma nuyu rek. di nuyu aussi tamit Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon ak Omar. bu Balla Gaye numéro 2. nag di nuyu supporter Balla Gaye 2 ah, yëpp ah mais vraiment parce que. maa ngi jégalu indi nga plus de vingt mille personnes ci stade. <laughs> <laughs> Balla Gaye 2 numéro yëpp. vraiment rawatina waa Géejawaay ak école de lutte Balla Gaye di nuy suma coach si Lamine Koro di nuy école de lutte Balla Gaye yi fa nekk yëpp soutenir ma ñëw ànd ak man si biir stade bi di nuyu suma àndaw bu baax di nuyu Pamama di nuyu aussi tamit sama tambour masor Adama Ngom. rawatina Père Diaw aussi maa ngi ko nuyu. ah foofu laay tàmbalee nag ba luy. kenn question doo te après doo teel fa nga yam kay. ah yam kay non non xam nga du seen invité. waaw nag <laughs> euh, Père nag ma wax la confrontation suñu émission la. mais ma lay wax tuuti bàyyi ñu ñu def suñu émission Père. xam nga Gaston. xam nga début bi nii. non pardon nañ bàyyi ni ni rek. waaw mu waa waaw waaw bàyyi rek de. waaw d' accord xam nga xam nga Gaston rek du Gaston. aléa du direct dafa de. waaw d' accord waaw nañ bàyyi nii kon aléa du direct soo amee Malouk gën a xam Malouk gën sa bopp. non bu ma ta bu kenn yemale kenn. non d' accord mais dama ni. ok xam nga ñoom. Gaston production du Gaston Gaston production du Gaston production. Gaston production sama famille yëpp ci lañu bokk. waaw sama famille yëpp ci lañu bokk muy soxna yi muy sama ñëpp ku mel ni Laat Ndiaye ci la bokk. ma jur ko ku hmm. mel ni Alioune Gueye malgré que mooy manager Bombardier ci la bokk ak ah, sama doom yëpp gis ngeen Makan. mooy président bi mooy. mooy c'est le petit Don mooy mooy lépp léegi. borom kaan bi man image boobu il faut karaaje après mu ma ko. ndax moom sabre yor yorul kaan sabre la yor. <laughs> maa ngi leen di féliciter parce que man làmb ji defuma ci dara de. Mm-hmm. xëy na euh, seetu laa ci rek nii mais defuma ci dara ñoom ñoo def lépp. lépp yow la ay ayca. Euh, euh, ak yi itam Gaston production nga bokk. yow ak kat yi ci la bokk <laughs> parce que suñu gisee feu d'artifice yi keroog ni mu naawee et mm-hmm, mm-hmm. naa ko ci Bantamba bi. journée bee ko ay millions nga yor yéene ñu ko wax dëgg yàlla di ñu ko jox donc euh, faaw ñuy def fa ba mu baax ñu ngi lay gërëm bu baax yow tamit. Mouhamadou Moustapha nañu dugg si ci débat bi parce que tamit Karajo balaa ñuy ñuy ñuy sori il faut nga may ñu tuuti tuuti ambiance su keroog.